xasida yi rek lan mën a xam bi. damaa ñëpp sax waaye te loolu te fekk ne loolu maanam ci wuyu si bi rek la war a am. xab bu njëkk bi rek daj bi maanaam xab boo jël am na njàngin njàngin boo jëlee maanaam xab bu njëkk bi yaadal baax war a aju ci kaw. walxidday maanaam wal xidda mi bu njëkk ba dañ ko daan déglu ci mag ñi dañuy jàpp ne dañuy def wal xidda maanaam dugg boobu wal xidda fekk loolu maanaam day day gone ñoom ñaari am na barab yoo xam ne dañuy noyyi rek dañu mel ne lu noyyi ñoom maanaam seen jàng compliqué wul dañu ko mën a misaale ñun léeg ci ñuy jàng dañuy bëgg a topp neex ci baat te def loo xam day day day wuteeg ba far nag wuteeg ñoom يا ذرب والخدي مني تقبل خدم مني تقبل مني تقبل خدم مو نيال خبو لول نيب دنجو ورا جاب نخ كنلا مني مني امنا واي مني xam nga def na min ni taqaat bal def ma ko noonu waaye way naa ko jàng naa ko waaye way naa ko min ni min ni taqaat taqa taqa dafa war a àgg ndax bal xidam yi ni ñu koy tege mooy sax ñaare sax am ñenn ci ñoo ñi def min ni taqaat bal xidam buñ koy def sax duñ ko tey te boobaa loolu yëpp day fekk day day bokk ci li cosaanal njàng mi waaye loolu dama ci dama ko leer noonu rek waaye loolu du may encouragé kuréel guy àggagul fenn di ko di ko roy ndax loolu dafa laaj baat bu ñor dëgg ay baat yu dem ba toqi kon bu kon ñu dellusiwaat ci kanam yi yaa zal baqa duñ ko war a aj مني تعقب بالخدمي طيب مقول طيب، نجي جيب الماي مني تعقب بالخدمي ولد ساي تخدمي بعموني قامي يا ذا البخاء والخدم مني تقبل الخدم والتردي تخدمي بها مهني قامي ذاك خيار الحربي ساكموني للربي ذاك سبيه تلبي طبيب أهل سقمي xam ni njàng mi dafa am diggante yoo xam ni day mel ni ñuy këf di ko mu aju ca kaw mooy tàmbali xab yi fu ci nekk ndax boo seetee bëxru bi maanaam bay du ci nekk ñeenti xab la am bokk la mu xaddamaat nga xam ni ñaari xab lay la bay du am kon bu dee bëxru jësu bi maanaam ñeenti xab lay doon kon tàmbali xab yi ku ne war a xam tàmbali xab yi dafa war a day jóg ca kaw rawatina xab bu njëkk bi ak ñetteel bi yaasal baaxa wal borom baat yi gën a dóor ñi xëy ñoo war a di njàng mi ñoom ñoo koy gën a jekk moo tax njàngu a sàmm dafa metti ndax lu ci nekk lu jël dafa war a àgg ba tax na moo tax puusante mënu cee ñàkk waaw loolu ñuy tuddee puusante nga xam ni ñenn ñi dañuy jël lii ñenn ñi di fekk ñu fekk lañ te bu ñu demee ba kuréel gën a miinante nag maanaam daanaka puusante bi bu ñuy jàng maanaam yow muy déglu doo ko doo ko ci ràññee kon loolu lu ci jar bàyyi xel la waaye njàng moom moom moom yaru na ñu jàngo yor te loolu loolu mooy di jiitu lépp moom bu ko defee itam kon ñaareel xab woowu daal moom la ak laa gën a séen ne war nañ cee gën a dolli liggéey mm-hmm. ci ci wàllu rim bi mm-hmm. waaw mm-hmm. ndeysaan waaw foofu yaasal baqaa gi maanaam dafa dafa war a gën a aju maanaam boo boo boo ko bu ko sa baat mënut mën ngaa def nii yaasal baqa liñ ci jublu mooy ñaari ñaari tonni la dégg nga wal xëy foofu da ngay noyyi wal waaye bu njëkk dañoo jàppoon ne mag ñi dañ naan wal xeeda te loolu day xalele mm-hmm. day gonewee mm-hmm. di njàng bi daa magee wal xeeda mi min ni ta gis nga min nii ni ñu ko war a jëlee mm-hmm. min ni min ni taqaat foofu moo jafe ci daaj bi te loolu maanaam saa sooy da nga ko war a bàyyi xel di ko teewlu ndax boo ko bàyyi rek bàyyi nga yàqu daaj bi مني تاقيب بل خدمي tax ñuy def noonu ñoom duñ ko tey ndax ndax baaj waaye loolu du keno bii keno mooy bal xidmi waltër sa lépp ay way la dañuy dañuy way njàng mi suñu loolu loo xam ne noonu njàng way la والدرد ساح تخدمي فوفت من أمصلة تخدمي بأمهني إلى الأقامي kon bu dee wàllu rythme moom loolu moom rek lañ ci seetlu woon waaw mooy xab bu njëkk wi daal moom nay tàmbali gi nay aju ca kaw maanaam beneen xaaju xab bu njëkk wi ñeneen ñi nga xam ne seen baat dafa doon gën a doon mhm. di ko di ndànk mhm. xëy nooy rek lay doon mhm. ñaareel xàbbu itam mooy mooy li gën a jafe ci daaj bi ñu bari dañuy def min ni taqbalxidami loolu am na ci daaj bi waaye bu ñu wuy si la wala boog njàngum 78 version 1978 la ñuy rime noonu kenn waaye bu dee njàng mi nga xam ne moo gën cosaane maanaam ñaar ñaareel xab bi mooy ni ñu ko defee min nii taqabal xidam min nii taqabal bu loolu jafee ci ñenn yi itam mën nañu def min nii taqab ma ne lu ko aj ñaari yoon rek comme ni ngeen def ci xab bu njëkk bi min nii taqabal xidami loolu it moom it bunt la lu ci am solo ci seenum njàng lañ koy raay waaw dama xamul nag da ci am loo xam ne bëggoon naa tuuti am ci ay leeral. dañuy wax ne. Mhm. Euh, njàngoom mi mag njàngoon ko soxna Fatia. waaw te njàngoon ko Mfaarul Jinaan. Mhm. moom la ñu royee ci gëstu bi. waaw euh, yéen lépp ci bi ngeen di jàng. Mhm. gannaaw bi dama dégg ne. Euh, ubbiti jumaa ji la. waaw te foofu ci lu ma leer. waaw loolu jar naa leer ndax bu dee daaj bu njëkk bi. ma boppam boo xam ni. ci ci ci ci ñaari daaj bi mhm. dañ koy jëlee ci ubbiti njàngum ubbiti jumaa ji waaye bu dee daaj bi njëkk bi ci njàngum kër soxna Faat ji lañ koy royee mhm. waaye bu dee ñaari daaj bi nag moom du ñu jël njàng duñu koy jàng jël waaw ndax dañuy jàpp ne dëppoo moom ndax mhm. xam nga ci wàll guddaay gi rek ndax njàng njàngin mu ne daa gën a diib bu dee ñaari daaj bi waaw xam nga bu ne malaktu afdalal ba xadame bil karame xëy dafa diib waaye bu dee njàng ubbite jumaa ji nag mhm. dafa mel ne njàng mi daa gën a dox mhm. ndax bu dee ci misaal sallim ala badrin jala du jël xoolo bi waxala zawil مقامات الهلا ويسبه وأسيمي قد قام قيل البشر واستقيار زمري إلى زاوية تكبري كالبدر واستنجمي يوما بيستدني ديل ديجنت بوب رك امنا ndax bu dee njàngum kër soxna Fatou Diagne yow mal bees te daani de xam ne day am ay uh-huh. bu bi nag day day mel ne lu uh-huh. yow mal bees te daani de yow mal bees te dal xiital رفرجال يوم ريلا والوجمي daa gën a dox uh-huh. daa gën a dëppoog njàngi ni jës bu uh-huh. <laughs> jës bu dafa doon njàng moo xam dafa euh, xasida gi ni bindoo uh-huh. dafa ànd ak xadar moo tax boo ko seetee ci bunt yi dala koy wan ba buntu su man sama diggante ak wax euh, wa kitaabul mubin xam ne ni mu def miim ya noonu dafa am xaal boppam boo xam ne da am da day dëppoog daaj bi ak njàngi mi tam موتاخ نيكو نيكو يري نون يا زلباق والخدام فوفي دام امنا ньо خاي توني وونكو واي بو امي نين نيو سين بات وايف نيكو توني دا نجي ام صلاه واي كونومي باخنا نين كو ديفي موي يا زلباق والخدام من لي تقبل خدمي والترديفه تقدمي بهموني هلقمي leen ko indi am na solo lool waaye foofu it am na ñetti xeeti daaneel yoo xam ni yeneen ñaari ci des ma jar naa andi ndax bu njëkk bi yéen ñëpp da ngeen def min ni taqabal mooy tée bi waaye am na min ni taqabal xid loolu it ci daaneel la loolu it ci mag ñi dañ ko royee rek ci ñoom lañ ko gisee mhm. waaye foofu it dana tax njàng mi dana gën a euh, cosaane mhm. loolu it wàññiwu ci dara mhm. am na itam min ni taxa xëy day woyof rek bañ ko def mu mu woow ba mu ëpp bañu def min ni taxa ba mu ëpp waaye day woyof rek min ni taxa bal xi loolu lépp ci ci ci ci ci daaj bi la ndax daaj bi dafa dafa doon daaj bu nduru lu yomb te jafe ndax ndax ndax am na ñoo xam ne danañ daan nañ ci gëstu ay at at lëmb moo xam ne daanaka day moom rek la ñu roy uh-huh. ngir mën koo jege ak di déglu di leen déglu uh-huh. waaye li ñu seetlu ci njàng moom mooy wax dëgg yàlla njàng mi tubarkàlla uh-huh. te it mel ni ab dox am na ci li li ci ci ci li ma dégg man sama xam-xam bu gàtt waaye nag ñaari xab boobu moom ñëpp dañ cee war a góorgóorlu ndax du yéen rek la jafe yéen sax li ngeen ci am ni mel ni am na ñu wute ndax booy seet daaj bi am na ci beneen rim boo xam ne am na ci waaye loolu du doonul ceno ndax boo jëlee fusti ci ñoom fi nañ ko royee ah. am na ñuy riime noonu ah. waaye dañuy del si waat dañuy mel ne luy génn waaye dañuy del si ah. am na ñuy def noonu waaye fil asad saydatan bil musinat boo diggee ñaareel xab bi dañuy dén delsi waaye am na ñoo xam dañuy jël noonu ba noppi jël ci ñaareel xab bi daan ne sayida te loolu ci wuy si bi rek la war a am uh-huh. boo ko indi ci rim bi rek day day uh-huh. day day yàq eh, yàqu njàng mi uh-huh. ndax daaj bi dafa am yàqu boppam waaw dafa am mooy bu bëru waak sima sàmba version 111 nga xam ne njàngin kër soxna Fatou te booy seet lii moom moom lañ jàpp ne mooy li gën a cosaane ci njàng waaye day daaj bu jafe nag waaye li ngeen ci am moom wax dëgg yàlla moom dal na xel daal dal na xel lool sax mën na mën na dem ab liggéey la. mu mhm. mel na yeesal bi mhm. comme daaj bi ñu ko yeesalee. Mhm. njëlbeenu rim bi. bëgg ci am leeral. waaw maanaam ba ci daaj bi sax. daaj bi daaj bi rek wuy si bi rek am na am na am na njàngin bu bu ci ne. ah ci boog nañ ko nañ ko gëstoo. ndax dañ daan jaral ñu jël ko. maanaam tëjoog moom. du mat ñaar wala ñetti nit. wéet fenn. toog lu mat bisib lëmb wala ñaari bis di ko di ko déglu rek. di di leen déglu. kenn kenn. ngir ngir loolu lépp ci ñoom lañ ko royee. nga xam ne moo boo ko jëlee ci ci dañ koy jëlee bu ne naajawtu rabbiyal karim am na ñetti tolluwaay yoo xam ne moo ci am ci daaj bi bu ne alhamdulilah aqil mobin dañu dañ koo seet di ko natt di ko natt ba gis ne ñetti tolluwaay la tollal aqil mobin aqil ma been booy seet dañ mel ne ñetti tolluwaay la kon loolu lu jar a jàpp la ndax kenn la ci daaj ndax daaj buñ ko wuy buñ ko daajee rek dañoo war a dugg ci biir ci biir ci biir yàqu daaj bi ndax mu amee ci lii noonu la amee ci lu mel ne mooyu buñ ñetteel xam boobu بلا مناي walante ay xam bu ñu daajee rek bu ñu wisee rek mhm. dañoo war a dugg ci daaj bi mhm. kon loolu lu jar a bàyyi xel la ku mhm. ne alhamdulilah aqil ma aqil ma ben man kaw noo bi sëñ maa koy déglu waaye ni mu ko defee am na solo lool ci sama liggéey على الكتاب المستبين ما جميع النهام الحمد لله العقل ما بين بالتلوي دي دي من كونه يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم daaj bi dafa dafa yërëmtal lool te te bu maasee ba yar rek ñëpp jàng kenn day day day yéeme day yéeme lool day yéeme lool xam naa ni wax ji bari na waaye nag noo <laughs> ngi lu baax dañoo liñ ci yéene rek mooy liñ ci xam akas néew ah liñ ci far ñu bokk koog yéen rek. incha allah <laughs> loolu dong lañ jublu. waaw xam naa ko mm-hmm. man na ñaaral daaj bi it. Mm-hmm. xam naa waaw ndax boobu it mooy mooy ni ko waxee rek. Mm-hmm. mooy njàng mi ubbite jumaa ji. nag lay booy seet ci gis bu ci lay gën a dëppool. ba ne lim ala badrin jala du jël xoolo bi waala. في المقا نتيل خبو ام صلى الله فدي جيت ñaar yon في المقا نعم. ما تله لا ويس به فحسيمي نعم. قد قام خير البشر نعم. وف دنجكو رواي ورتو تالي رك ñaret nonu قد قام خير البشر dañ ko roy foofu wastaqiya mooy kanam bi wastaqiya risumadi ila sawiye takaburi ila sawi gis nga ni mu def ila sawi ni day mel ni loolu tuut dafa dikkaat takaburi kalbadri wees bañ def kalbadri wees yu bëri day jànge noonu day waaye kaddu la kalbadri wees ta anjumi yawman bees ta danni daayal yawman bees ارتد الختال عميد يوما به يستد القتال منك يدك ولكن كو خاني باتم دون من نيري مي نونو دو سي واجي دو ياك دارا واي لي موي كانوبي كانوبي موي يوما به يستد القتال يوم تهرفي رجال يوم ريلا والوجم am na ñuy def يوم ريلا والوجم bu dee borom baat bu oyof ku ko mën ko jekk loolu bu ko defee su su ma naa lu solo la ñëpp dañu ko war a ànd su ma naa min mina sama bu ko kenn defee rek day wuute daj ñépp daaw dafa war a ànd mooy sëñ muy booy seen mooy mooy ci gën a fës ci ci njàngin moom bu ko defee dafa war a tàlli rek mina sama sama foofu la maanaam euh, jafe-jafe fa la ne mina sama xaylul wajun masuma ila rëy bu ko defee am na itam ñu def ila rëy am ñu def ila rëy yooyu it loolu lépp ci ci xeeti wàcce yi la sil kurama bishran bi xayri wa kami amma do gis nga day tàlli rek amma do waaye it am na ñu ma def rabbul lanaam gis nga ni ma def min asama rabbul bi jundi am lakin i eh, dafa am solo ndax ñëpp dañ ko war رب لنا نعم. بجندي أم لكن إيه لكن دون نيب قرآن بيجي لول لكن إيسا لها دين لا للهام أردو سوي تسمي وفيه ما إسوارد mooy mooy mooy beneen doole bu ci mm-hmm. wa fiihi ma iswarada waaye des ma iswarada qalilol مسانادو فوق جاوا دين سي سيمي دين جيت بولا نيخي دور كو بولا نيخي nga talal ko rek فوق جاوا دين سي سيمي kon mooy set loolu ci gàtt daal mooy mooy li aju ci eh, ñaal daaj bi mm-hmm. ci rim bi jara bàyyi xel la mm-hmm. wa fii na way wa fiihi moo is waradoo xaliiluhul mumajjadoo loolu ku mu jafe ci yow mën nga def xaliiluhul booy seet moo gën a jàppandi xaliiluhul a <laughs> si waat uh-huh. xaylun wajun dun asuma ila rëy c'est kaymi amado fofu wëndel wëndel la mo xani mom da nga wara wëndel sa bat baxa bax amado amna way nak amna ci ño xani fu melni señ mi day mel da koy fa rek amado waye bu doon baat bu woyof moom bu ko wëndelee lu mu lu galangam gën a rek ndax day am loo xam ni bu doon baat woyof ñoo koy gën a jekk wàññu ci dara amma do rabbul lanam بجندي أم لكن إيسايم لهديد لا للهام أردو سوي تحسومي noonu daal moom mooy li ci li ci ne mel na ñetteelu <laughs> ci tuuti waaw ñetteelu daaj bi itam mm-hmm. moom it ci ci ci cosaan yi dëgg la bokk moom itam mm-hmm. waaw ndax bu ci ni nga xam ne ñun suñ suñu suñu suñu gëstu bu gàtt. Hmm. liñ ci liñ ci tënk liñ jàpp ne mooy keno bi mooy mooy ni ma koy defee bu ne. nihma nabiyu wa wàllu daaj bi rek. nihma hmm. nabiyu wa rasul xam dañ ko roy ci ci ci sëñ mi ci boppam. Hmm. ni ni moom ni mu koy soppee. nihma la si jaada bi suul. لنا بربه الجميل من ذكره ولقمي آيات تعمده لا تتناهى سرمدا وما القوى ذوي الهدى أن أتيها بالخليم أرسلها الله إليه lu doy waar ngi noonu ndax loolu maanaam ci ñoom ni ñu ko jànge ki mag ñi ci ñoom rek lañ ko jëlee doon lu ñu fent wala loo xam ne waaye dañuy déglu rek hmm. waaye maanaam loolu moom bëru bi dëgg foofu maanaam foofu la arsala la ila kulli wara kulli wara muratila zikran alay هدى لذي تعلم أرسلها الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا عليه إلى هدى لذي تعلم waaye nag bëri na ay ay ay xeetu jaar mm-hmm. waaye li jublu mooy kenn bi rek laa andi laa jéem a andi mm-hmm. laa jéem a andi ci mm-hmm. ni ko dégg jàpp ne lii bu ko ñëpp defee danaa cosaane lool dawati nag ci ci bëru bi daa rabbul anam li أم لكن سام لهدد لا للهام أرض سبي تعسومي ba ci rim tam am na yeneen xeetu rim. mel ni mel ne ardo jooju nag daa mel ne am na it. am na ñu koy tëj. waaw kaw di ar waaw ah, loolu lépp ci ci daaj bi la loolu lépp ci ci daaj bi la rek waaye xam nga daaj boo gis bu ne rawatina waa Sëriñ Massamba bala ñu koo mën a jàng wala kuréel jàng ko mu tegu ci yoon dafa am lu ñu tuddee keno daaj boo gis am na ay keno keno yooyu nag ku ne da ko war a jàpp ci kuréel gi xam ne lii mooy keno waaye bu keneen defee leneen nag ñu xam ne kii xëy na baatam da koo man mu def ko ngir njàng mi gën a jege mag ñi ak gën a cosaan loolu ci jublu waaye loolu rek lañ ci jublu mooy jublu gi waaye keno bi dafa war a leer ñëpp ku nekk xam ko ku ne xam ni sàngam nii lañ ko war a defee. Mm-hmm. loolu lañ jublu ci keno mm-hmm. kon boo gis am na keno mm-hmm. kon loolu lañ ci jublu ndax ba ci daaj bi boo jëlee ci rim bi am na am na xeetu rim lu mel ne amado rabbulanam bi junde am lakin hisam liadadin lalilem ardasabi tasumi waaye doon loo xam ne nag dañ dañ ko dañ ko wax ni ngir xam ni daaj bi richesse daaj bi la waaye waaye doonut loo xam ni du lu ñëpp war a roy ñëpp war a def daal mooy kanam bi rek ne kanam bi ñëpp mën ko ba noppi bu ko defee nag baat yi gën a wulliku am ñoo xam ne danañ am loo xam ne dañ ko danañ ko man ci waa ma Masamba te loolu du ci mën a ñàkk day gën a cosaaneel njàngin